ci suñuy jàmm yàlla yépp jéggal ñu suñuy bàkkaar di ko ñaan ci mbaaxam mu sàmm nu sàmmal nu suñuy kilifa yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha yokk ko wér ci ak mbaaxam nu dellusi rekk ngir waxtaane lu aju ci bis bi ñu génn ak lenn ci li nga xam ne bu ñuy génn ci bis bi war nañ koo teew lu bàyyi ci sunu xel lu mel ne sant suñu boroom subhaanahu wa taala ci ay xéewalam lu mel ne ragal yàlla ak tuub ñett yooyu yépp dafa lënkaloo ak bisu tabaski ndax sant suñu boroom subhaanahu wa taala ci ay xéewalam dafa doon warugar ci jullit te bis bii nag bis la boo xam ne xéewal gi ci yàlla defal doomu aadama da ciy gën a fés suñu boroom teral gi mu teral doomu aadama teral ko ab jullit dafa gën a fés ci bis bi ndax ni mu ko tàggatale ay mbindéef ni moom mu sañ leen a jël jëfandikoo leen te suñu boroom da ko cay fay booleel ko ca te mbindeef yooyu nga xam ne ñu ngi leen di tër di leen rendi suñu boroom moo ko tàggatal doomu adama suñu boroom moo ko terale doomu aadama loolu nag di xéewal koo xam ne doomu aadama war na koo yëg jullit bi war na koo yëg ndax suñu boroom bind la def la nit ba noppi wëlbatiku ne dama teral nit kon loola kenn ku nekk war nga koo yëg bu la suñu boroom dollee nag xéewaluk nga gëm nga gëm ko gëmub yonentaam sallallahu alayhi wa sallam loolu ci xéewal yi gën a mag la bokk kon nag bis bii nga xam ne mooy bisub tabaski buñ ci nekkee ak buñ ko weesoo kenn ku nekk war ngaa teewlu xéewali suñu boroom yooyu xam ne suñu boroom moo tàggatal doomu aadama li ci kaw suuf lépp wa saxara lakum ma fi samawati wa fi l ardi jamian minhu inna fi daalika la ayatin li qawmi yatafakkaruun kon képp kuy xalaat rek war nga xam ne nit mënul dara waaye suñ borooma ko cëral rek tàggatal ko li ci ko asamaan ak suuf lépp kon sant googu dafa war ci jullit bi suñu boroom subhaanahu wa taala daf ñu koy digal ne xéewal yi leen suñu yi ma leen defal man yàlla na ngeen ko xéewloo mu doon lu lew lu teey waaye bu ngeen ko defee ba noppi na ngeen sant na ngeen ma sant na ngeen yëg ci seen xol ne maa leen ko defal nangeen ko nangu su fekkee ne jaamu ngeen may jaamu dëgg la na ngeen nangu ne kon maa leen wërsëgal maa leen jox ay xéewal fa kulu mimma razaqakum allahu xalaalan tayiban washkuru nicmatallah in kuntum iyaahu taabudun kon loolu ak cant kon dafa war saa bu ñu xewloo ci xéewali suñu borom subhaanahu wa taala yàlla mi ngi wax ak waa bani israil di leen ñaax ci ñu sant xéewal yim leen defal yaa bani israil ashkuru nicmati allati anamtu aleykum jullit nag saa bu santul yàlla xéewal gu ko yàlla defal mu gis ca boppam jàpp ne man mana ma jàpp ne ak njàmbaara ma na xam ne kon seytaane mi ngi koy jekku ndax saytaane dafa bokk ci li mu nésër dox diggante jullit bi ak sant xéewal ko yàlla defal waxtu wu nekk saytaan day samp ak ay fiir ngir nit ki du ko mën a jéggi ba àgg ci li mu war a def mooy sant xéewali suñu borom subhanahu wa taala ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين kon seytaane ay pexeem bokk na ci fexe ba jullit bi du yëg xéewal ko yàllay defal du ko ci sant kon nag sant xéewal gu rëy goo xam ne eh, toll na ne bis bii ak li ci suñu boroom wane teral gum teral doomu aadama kenn ku nekk kon war naa teewul suñu boroom ci xolam di ko sant sant googee nag dafa war a feeñ ci gën a yokk ak jaamu yàllaam gën a jox boppam boroomam gën a jëfe lu baax ndax kat ak cant ci xol lay nekk waaye day feeñ ci ay jëf suñu boroom subhaanahu wa waxoon na ne i'malu ala daawuda shukran wa qalilum min ibadiya shakur kon ginnaaw sant googu it nga xam ne li ñu war a jële ci bis bi la gën ko cee teewloo gën ko cee fàttaliku gën ko cee eh, gën ko cee yëg ragal yàlla it dafa bokk ci li nga xam ne suñu boroom moom la wax ne moo ko yitteel ci li ñuy def lépp ci bis bi li ñu ci def yëg gi ngay yëg ne sama boroom moo ma defal xéewal moo ma defal wërsëg ba ma mën a tër mbindeef rendi ko xéewloo ko mu wëlbatiku di ma ca fay yëg googu nga yëg ci sa xol loolu moo ci yitteel suñu boroom subhaanahu wa waaye du ndawal gi du deret ji te loola suñu boroom subhaanahu wa taala moo ko wax ci alquran lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum kon te ragal yàlla googu nag te mooy waxtu wu nekk nit ki di bàyyi xel boroomam subhaanahu wa taala ci xolam di moytandiku lépp loo xam ne suñu borom daf koo tere di góor-góorlu ci lépp loo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala daf ko koo digal yëg-yëg boobu mooy taqwa te mooy musal nit ki ci mbugalum suñu borom subhaanahu wa taala ginnaaw taqwa googu it nga xam ne lu ñu war a bàyyi xel ci bis bi la ndax ginnaaw moom moom la suñu boroom wax ne mooy yegg ci moom tuub dafa doon loo xam ne waxtu yi ñu tollu ay waxtoom la jullit bu nekk war nay tuub waxtu wu nekk ndax doomu aadama ak doyadeem tax na waxtu wu nekk mën nay moy boroomam te du ko yëg te du ko bàyyi xel moo tax di ko tuubal lim yëg ak lim yëgut day farata saa su nekk waaye nag day am waxtu yoo xam ne day gën a day gën a feddliku sëriñ bi radiallahu anhu ci xutba bi mu bind ñu di ko jàng ci korite ak tëbaski bu ñuy julli ma nga cay fàttali bu baax tuub di ko ca dénk wa tuubu fiihi ilayhi tabaraka wa taala min jumlati al isyaan fa innahu yaxfiru lakum wa yakuffu ila gayrikum gawi tuxyaan suñ boroom nañ koy tuubal kon nañ koy tuubal ci mbooleem mooy yi nga xam ne ñi ngi koy def suñ ko defee danañu jéggal te dañu fegal ñi nga xam ne woy bew lañu tuub nag dafa am solo ci waxtu yépp waaye nag buñ tollee ci waxtu yi nga xam ne ñi ngi séentu ab nawet waaye dugg ci nawet bi ñaan suñu boroom mu barkeel ko lool yaatal ay xéewalam ci mbindeef day waxtu woo xam ne tuub dana tax suñu boroom yokkal ñu ay xéewal wàcce am ndoxam waaye ñu toll ci jamono yoo xam ne it mbas mi mi ngi sonal doomu aadama yi te xam nañ ne mbas bokk na ci li koy waral ak mooy yàlla gu ñuy fësal di ko béral loolu seydina muhammad aleyhi salaatu wassalaam wax na ko ci ay ahadisam ne saa buñ demee bay wane ay ñaawteef rek suñu boroom mën naa wàcce mbas moo xam ne dana sonal doomu aadama yi kon nag ca ak mooy yàlla moom tuub rek mooy li nga xam ne moo ko mën a faagaagal kon buñ tollee ci waxtu woo xam ne ñu ngi bëgg yàlla di ñu dollil ay xéewalam wàcce am ndoxam waaye toll jamono joo xam ne it sonn nañ ci mbas moo xam ne të lottu loon na doomu aadama wane na néew dooleeg doomu aadama ak fi ñu toll ci wàllu xereñte ci wàllu xam-xam waaye suñu boroom waxtu wu nekk muy wan doomu aadama ne ko moom mooy boroom kàttan mooy ki nga xam ne dañoo war di dellu ci moom saa bu nekk ndax waxtu wu nekk mën naa wan doomu adama ak tëleem ak néewam doole kon war nañoo góor-góorlu ci tuubal suñu boroom subhaanahu wa ci suñuy bàkkaar tuub googu nag Sëriñ Tuubaa ni mu ko jàngale ci Jawharun Nafiis dafa am ay sart yoo xam ne ku bëgg a tuub fokk nga bàyyi ko xel te mooy rëccu rëccu moo cay jiitu rëccu li nga defoon ci ay moy mu naqari la lool waaye feek yaa ngi fàttaliku ay ñaawteef sa xol di ca sedd walla naqarlu ko wala mettiwul ci sa xol na nga xam ne kon sa tuub des na la jiitu ci ak tuub moom la nga defoon moom nga rëccu ko la defoon nga rëcc ko te daa bàyyi lépp loo nekkoon mu di mooy yàlla tuub tuub ko mooy nga daal koy bàyyi ca saasa loolee nag koo xam ne tey yaa ngi naan yaa ngi tuub waaye la ngay def ci ay ñaawteef yaa ngi koy def ne xanaa suma noppee tuub danga xam ne kon loola la ngay def du du tuub ndax bokk na ci sarti tuub kon daal di bàyyi la ngay def ci saasi su fekkee ne loo tooñ suñu boroom la koy daldi bàyyi ca saasa su fekkee ne loo tooñ sa moroomu mbindeef la it da fexe ba jégglu ko ko bu dee ak joo ko yoreel nga fexe ba delloo ko ak am joojee waaye bokk na ci sart sarti tuubit nit ki fas yéene bañ a delluwaat ca loolee muy tuub muy ak mooy yàlla kon sart yooyu mooy sarti tuub mu sëriñ bi wax na ko ne wa min shurutiha nadaamatun ala ma faatahu min almaasi musjala wa niyatun fi baqi min alumur adama awdihi li kulli ma yadur wa an yakuna taarika al isyaani in kaana asiyan bila tawaani dolli ca ne wa hakada raddul al muti kon tuub googu nag nga xam ne ci xol nekk waaye nit ki da koy war a jëmmal ci ay jëfam mooy bàyyi moy ga ca saasa rëcc ko yéene ban caa dellusi mel ne koo xam ne dangaa joggi ci aw xal ndax loolu dañ koy misaale tuub bu dëggu day mel ne ku joggi ci aw xal ndax moom saa boo ko ca tegee danga ko daal di teg ca saasa te danga rëccu loo ko ci doon tege ca sa danga sa yéene mooy dootoo ko ci tegaat loolu nag suñu boroom subhaanahu wa taala ñu ko digal wane ne soññ ci barab yu baree bari ne moom day jéggale képp ku tuub ak loo mën a def ci ay bàkkaar rek lu dul bokkaaleek yàlla suñu borom subhanahu wa taala daf koy jéggale nit ki wërta naagu ci yërmande suñu boroom ak mu baaxam ak mu jéggalam wa huwa alladi yaqbalu tawbata an ibaadihi wa yafu suñu boroom waxtu nekk dañuy dalal ci bu ñu tuubee rek mu jéggal ñu ay ñaawteef lu mu bari bari bu ko jullit bi tuubee suñu boroom subhaanahu wa faral ko ko qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min raxmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamia innahu huwa alxafuru rahim loolu lépp suñu boroom subhaanahu wa dañuy dalal suñu xel ci moo ñu binde ñuy néew doole waaye nag doole ji nag mooy di dellu ci suñu borom subhanahu wa taala di ko tuubal di ko tuubal di jégglu lépp loo xam ne def nañ ko ko loolee nag doon loo xam ne waxtu wu nekk dañ koy war a bàyyi xel waaye buñ tollee ci waxtu woo xam ne ñi ngi séentu am nawet dañ cee war a gën a gën a góor góorlu li tax ñu wat ci gën a góorgóorlu mooy subhanahu wa taala moom yàlla moo ñu dël ne suñu tuubee jégglu suñuy bàkkaar dana wàcce am ndox dana wàcce xéewal ci kaw suuf loolu wax na ko ci rab yu baree bari wa yaa qawmi staghfiru moom nag ginnaaw nee na buñ jéggloo suñuy bàkkaar mu wàcce am ndoxam kon ni ñu koy digale waxtu wu nekk suñu kilifa yi di ñu ko digal ñuy sàkk sarax di tuub di jàngal alquran kenn ku nekk da nga ko war a fasoo góorgóorlu ci fas ci yéene li nga xam ne moom lañ bëgg tam nekk ci loxol suñu borom subhanahu wa taala ñu ñaan ko ko mu wàcce ko muy ay xéewal ak jàmm suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy xamal ci làmmiñu sayidina nuux alayhi salaam fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili samaa alaykum midraara wa yumditkum bi amwaalin wa banina lakum jannatin wa lakum anhaara laaya boobu euh, dafa ëmb njariñ yu bare bare bari njariñuy jéggulu suñu borom subhanahu wa taala ndax ginnaaw li ñu gën a soxla gën koo bëgg muy wërsëg ak xéewal ak euh, njaboot loolu lépp ak naataange loolu lépp suñ boroom moo ko yor te moo ne bu ngeen ma jégguloo dinaa leen ko defal kon kenn ku nekk war naa bàyyi xel ci jégglu googu ñi ngi wax ne imaam Xasan radiallahu anhu mos naa toog am ku ñëw ne ko man de damay jàmbat fa ñu dëkk dafa bekkoor lool tawatut bëggoon nga ñaanal nu suñu boroom wàcce ak taw mu ne ko bu ko ngeen demee na ngeen jéggulu seen boroom subhanahu wa taala am ku ñëwaat ne ko man de dama xawa tollu diggante bari tolof tolof wërsëg wi xaw a gàtt mu bëggoon ku ma ñaanal mu ne ko boo demee na nga jéggulu sa borom subhanahu wa taala اشهدوا illallah أكبر xasan radiallahu anhu kon ki ko njëkk ñaanloo ci seen barab bu bekkoor da ko ne na ngeen seen boroom am keneen ku ñëw jàmbat ko ak ñàkk sàkku ci moom mu ñaanal ko mu ne ko na ngeen jéggulu seen boroom na nga jéggulu sa boroom am keneen ku ko ñaan ne ko moom njaboot la bëgg yàlla da ko wërsëgalagut doom mu bëgg yàlla may ko doom mu sàkku ci moom mu ñaanal ko mu ne ko boo demee na nangay na jéggul sa boroom am koo xam ne ab toolam bu bekkoor la ko tawat sàkku ci moom mu ñaanal ko mu ne ko boo demee na nga jéggul sa boroom ki ko nettali wax ne loolu day biñ ko déggee ñu am ci jaaxle ci ñépp lenn la leen sant muy jéggulu te liñ ko tawat bokkut mu ne leen loolu day waxuma ko waaye suñ borom subhanahu wa moo ko wax daal leen di taril aaya boobu ñu jàng leegi mooy istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili samaa alaykum midraara wa yumdidkum bi amwaalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara kon suñ borom moo wax ne bu ngeen tuubee moom ku mën a jéggale la waaw na koy jéggulu ndax ku mën a jéggale la ci it dana wàcce ci yéen ab taw taw bu bari waaye dina leen jox ay njaboot dana leen defal naataange tuub googu nag sëriñ bi radiallahu anhu daana ko faral di digle lool bari na ci ay mbindam bari na ci ay dénkaaneem bari na ci yi nga xam ne daana ko tomb di ko jàngal mag ñi mooy ñuy dëkkoo ñu taxoo tuub ndax képp koo xam ne dangay xeeñc suñu borom subhanahu wa taala tuub sa ngànnaay la ndax ab xol dafay tilim dafay tër ba leeri suñu borom subhanahu wa taala du ca yegg la koy xacc nag di ko setal mooy tuub yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne nit ki mooy yàlla gum mooy yàlla rek day def ab tomb bu ñuul ci ab xolam nga xam ne ab seetu noonu lay tilime ba du mën a wane benn ceneer ab xol yi dana àgg foofu wala yaasu billah loolu nag la koy saafara mooy tuub kon moo tax ñiy defar doomu aadama yi di leen jegeel seen boroom bokk na ci lañuy ñuy ak nit ki bëgg a àgg ci suñu boroom bëgg xam suñu boroom bëgg am ngërëmul suñu boroom mooy mu taqoo tuub sëriñ bi daana wax ne lépp loo xam ne dangeen ko xemem bëgg cee jot bu jafee nangeen tuubal seen boroom subhaanahu wa taala loola dina ko ñoddi bam agsi ci yéen lépp loo xam ne dangeen da koo ragal bëgg koo jañ te mënu leen koo dindi na ngeen tuubal seen borom subhaanahu wa taala bu boobaa dana dox seen diggante ak loola ca du ngeen ci sonn mu ne bu leen tooñ seen boroom bu tooñ seen bopp wax ne tuub mooy liy ñoddil nit ki ay mbégte waaye moo koy jañal mbooleem ay lor kon na ngeen taqoog tuub gu sell suñu boroom subhaanahu dina wëlbati seeni mbir ci anam gëm gën a rafete dina ko rafetal kon loolu ndénkaan la loo xam ne sëriñ bi ba mu koy dénkaane dafa woo mag ñi dafa woote ca loola bisu ajjuma la woon ci ñaar fukki fan juróom-ñett ci weeru rajab ci atum junni ak ñetti téeméer fanweer ak juróom-ñeent tolloo woon ak juróom-benn fan ci avril ci 1921 ci la woo mag ñi waaye daat leen jiite ñaari ràkka waxtu yoor-yoor digal leen ñu yéene ci ak tuub tuub gu sell bañ ko defee ca la leen joxe ndigal loolu kon nag nun ñépp nañu maase ci tuub ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala li nga xam ne mooy xéewal yi mu yore mu gën koo yaatal ci bindeefe yi gën koo yaatal ci réew mi nawet bi suñu borom subhanahu wa taala def ko muy nawet bu xéewale waaye li nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy mebet di ko ñaan suñu boroom ñu dëxëñaale ko ci ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko fi lool te yokk ak wéram li mu naa la liggéeyal sëriñ bi liggéeyal ko lislaam bi liggéeyal ko xeetu doomu aadama yépp suñu boroom kàttanal ko ba mu mottali ko noo ànd ko ak moom ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu jéggal nu suñuy bàkkaar saxal ci ak njub yaatal yërmandeem ak jàmm ci réew mi ak ci réew yi jub yépp fuñ mën a nekk wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala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 السلام حي على الفلاح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 inna allaha gafurun rahim الحمد لله ما تحرك متحرك وارتج واللبى محرم وعج وقصد البيت من كل فج وأقيمت لله في هذه الأيام مناسك الحج الله أكبر ما نحرت بمنن النحائر وهضمت لله الشعائر وسار إلى الجمرات سائر وطاف بالبيت العتيق زائر أما بعد فيا أيها الناس شمروا وفقكم الله لآجلة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 والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر سمع الله ربنا ولك الحمد الله akbar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 allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum